فاكرم به ربا نفى عني العداء وساق المنى لي والجناب حقير خنيت به ربا وليا يقود لي maraami wa inni shaakirun wa faqiirun umuuri lahu fawwaat wal qalbu tayyibun qariiban ladal a'daa wa huwa basiirun rafiqi kitaabullah xiwal mustafa nabi wasaabu fil baari xiina duuru uxaatibu bil maa بطيبة وإني له جار هناك waaw ñoo ngi eh, ci turu maam sàmba ma ñoo ngi ci turu maam Samba mooy turu kër gi waaye ñun ñi ay dongo lañ liggéey luy liggéeyal bi fii nii tudd jiili jiili wañ jaajëf waaw li sabab exposition bi mooy euh, julli liggéey gi te euh, soxna Sodo Sodo Xumma mii nga xam ne wóllëre sëñ Babacar Mbow la mii nekk ndéem pour mu ñu namm tey euh, wane li nga xam ne ne moom la soxna yi di liggéey ndéem ak Mbàkke Kajoor ñi delloo ko lépp nag moom tamit taxawaayam tamit rafet lool ci bis bi waaw boo boo gisee ñu naan cosaan ak aada rek dafa nekk loo xam ne lu yàgg la te tey cosaan ak aada boo xoolee suñu liggéey tey romb na foofu ñun ñoo ngi dans on on est le moderne one dans la dans dans dans l'originalité l'authenticité lépp loo xam ne c'est original te mu baax ci yaram day xaw a nuru nag lu cosaan waaye lii nii dara bàyyiwu ko fi muy tey di suba di ëllëgi ëllëg fu waay mën a nekk mën nga ko sol fu waay di dem mën nga ko sol ndax on a tous les tenues on a de ville am nañ tenue traditionnelle am nañ tenue boo xam ne ne loo xam ne ne tey jii nii fu waaye mën a nekk rek mën nga ko sol ñoo liggéey tamit ci wàllum décoration mu nekk nii sama wet ngay gis ak ci wàllum alimentaire ak agro alimentaire bi nag am nañ ay huile am nañ euh, ñoo ngi liggéey ci bisaab di liggéey ci buy di liggéey ci moringa muy saab-saab dañuy liggéey ci 38 produits yoo xam ne benn bokk ceeg moromam te bu ci nekk nag dañ koy liggéey liggéey bu sell bu baax te bu mucc ayib lépp loo gis fii rek mooy njaboot gi nekk sa ginnaaw ñoo koy defar ñii dañuy jóge ba Touba Mbàkke Kajoor ñooy defar jus ñooy defar confiture yi ñooy defar bisaab bi ñii ñoo ngi ndéem ñii ñooy defar yére yi ñii ñoo nekk ci production bi ñii ñoo nekk ci euh, infusion yi ñii ñoo nekk lépp nag ci xam-xamu sëñ bi ñu jàllale ko de génération à génération ba ñoo xam ne ne tey sax bu ñu bëggee tey yokk liggéey bi ci xam-xam bi dañuy gis ne dañuy def formation tubaab bi ñooy ñëw ba fii ci suñuy labo yi di ko certifié waa budget bi moom daanaka yaatu na ndax tey fii nii nit liggéey na lu rëy te te paarewul ci dara te sëñ Babacar ku ko xam xam na ne Maam Samba depuis 1986 mi ngi ubbi ay store am biir bitim réew ci France ba tey jii nii am nañ six boutiques fii sept boutiques biir Sénégal kon tey budget bi boo ko waxee rek day mel ni lu lu lu yàggul la te lii lu yàgg la. ba tey jii ni boo xoolee ñun suñuy boutique ay millions la ñuy def par vente par Sénégal dañoo desee xam waaye xëy na sëñ bi noonu la ko nammee waaye liggéey bi yaatu na lool ba nga xam ne ne tey jii nii bu ngeen ñu bëggee jot rek bu ngeen defee maam Samb ci internet bi rek di ngeen ñu gis te xam ne ne lii yëfi yëfi sëñ bi la rek waaye waaye waaye waaye waaye nit ñi ñoo ngi siy def loo xam ne ne tey bu ma sañoon ñëpp xam ko parce que liggéey bi mucc na ayib bëri na njëriñ te tamit euh, am na ci. nekk lu ci ginnaaw loo xam ne ni ñi foog ñu xam ko. fi mu ko mën a amee bëri na ci fi mu bàyyoo ko bu fekkee ne ne mi ngi Dakar côté mi ngi Ngor Almadi bu fekkee ne mi ngi boori Kajoor wala boori euh, Njaareem mën na dem ba tuubaa bu fekkee ne mi ngi boori ville mën na dem gore am na sali am na am na am na gore am na Saly am nañ Dakar butik am nañ tuubaa Mbàkke Kajoor itam am nañ fa boutique Bambey tamit am nañ fa boutique boo sukkandikoo tam ci produit bu ci nekk boo fi gis rek am na suñu numéro téléphone wala boo leen ko bëggee rek mën nañ leen ko jox mën nga def 5 77 599 22 22 77 599 22 22 ku dugg tamit suñu page internet boo tapee Maam Samba rek Google di nga ko di ñu gis te information yëpp a ngi foofu noonu waaw ñoo ngi santaat bu baax a baax ci euh, ci bis bi ak ci nga xam ne ne tey moom lañ ko cëralee muy sëñ Babacar Mbow di santaat bu baax a baax tey euh, rafetluwaat bis bi bu baax te di xam ne ne ñun tamit dañu cee boole rek waaye gën naa yaatu lii di ñaan yi itam ñu fekkee ko ay déwéni déwén te ni ànd seeg yéen tamit.